mouvement Kaolack nouvelle vision nag lépp ko créé en 2011 jàpp 2012 dafa mës a teew bu ko askan bi soxla ndax ñun suñu philosophie mooy politique ngir jaamu soxla askan bi quelle que soit urgence soxla bi ak quelle que soit nature soxla bi Kaolack nouvelle vision teew na ci jamono ji nga xam ne nag dañoo nekk di dund situation bu doy waar muy crise sanitaire boo xam ne ne kenn mësu ko gisee crise sanitaire bu sévère la ndimbalante lu am solo la ci moo tax tey ñu am mbégte lool waaye tamit di ci sant yàlla di venir en aide lu mët ñaari téeméeru ménage indil leen ay euh, ceeb ak diwlin waaye tamit di jox autorité académique gu Kaolack un lot important de masques pour élèves yi nga xam ne ne war nañu reprendre cours très prochainement ndimbal boobu nag dafa jéggi militant yi egg na ci kaw la quoi yi nga xam ne ne ji nekk ci ruqa ruqaani ñu gën cee ràññee suñu xarit suñu mbokk jakarta maayin ñi nga xam ne ne ñëpp xam nañ ne pandémie bi laal na leen bu baax waaye tamit fàttewuñu ci suñu fraise et sœurs yi nga xam ne ne ñoo ngi jàngale dans le privé te ñu ci bëri seen salaire gëj nañ ko laal ndax coronavirus kon mbokk yi da ngeen nangoog man que jamono ji jafe na loolu waaye du ñu tere am ngëm moo tax ne nañ booloo ñaan yàlla mi nga xam ne ne dara tëw ko mu defal ñu tawféex fii ci Sénégal ci àdduna bi yëpp waaye nag ñu ñaan surtout virus bi nga xam ne ne mu ngi lëmbee jamono bi lëmbee àdduna bi mu jóge fi ba faaw ngir activité économique yi reprendre ngir vie sociale bi daal di continuer waaye nag loolu duñu yem ci ñaan rek ndax ndimbal na ci fekk loxol borom moo tax dama leen di rappeler ñu respecter les règles d'hygiène élémentaire waaye tamit ñu appliquer les gest barrières maanaam sol masque di raxas suñu loxo ak saabu régulièrement wala ñu utiliser gel hydroalcoolique waaye tamit nag moytu déplacement yeeg ndaje yi nga xam ne ne amul solo lool

té dañu nek suñu morom ndaw ñu choisir dans sen dolé au lieu de def nenen motax nak c'est une façon de leur euh, rendre hommage ndax métier bu noble lañ def parce que ils permettent la mobilité de la population kaolackoise mais tamit enseignant du privé bi ay jeunes ay jeunes yu gëm sen bop jang ba paré pare ñu sen diplôme mais ñeneen duñu tok dañuy ñafé dem di former ñi nga xamni ne dëkk bi muy les enseignants muy les élèves donc ñom bi tamit ñu saisiroon ma xamal ma nekk nañ ci ay difficulté ma ñëw di leen jàppale. lu ñu indi woon tey mooy dañoo ñëwoon teewee si si turu délégué de quartier bi remise distribution bi am muy loo xam ne ñëpp a ko rafetlu bañ ko déggee kenn laajtewul kan moo koy def parce que ku nekk xam na ne saam am na doom ju baax ju fi yeewoo joo xam ne bët bu set xalaatam ak yéene. mooy lu jëmale saam kanam moo tax ba ñu ko yéegee ñëpp xam nañ ne Kana dañ ne Kana Bengelloun la kon ñu ngi koy ñaanal yàlla mun nañu wax ne c'est un digne fils de Sam ñu ngi lay ñaanal yàlla Bengelloun yaa xam li nga bëgg yàlla la ko yàlla defal. délégué de quartier ne la waxtu wu nekk moom mu ngi lay dafa am dog spécial boo xam ne mu ngi la koy defal ndax ne na moom mooy premier citoyen bu quartier bi kon képp koo xam ne. sa taxawaay mooy lu ka quartier bi kanam rek moom ngay liggéeyal moom ngay dimbali si liggéeyam ku ne na defal na la dafa lay defal dog di la ñaanal yàlla di la wax na rek na nga muñ na nga muñ ndax yàlla tax ngay liggéey te li ngay li ngay def yàlla gis na ko tey dañ ñëw teew fii ñu teewal Youssou bi nga xam ne citoyen la responsable la euh, au-delà don yi nga xam ne président de la République joxe na ko xool loolu dafa nek doomu kaolak nek doomu sam action yi mu yàgg ko def ci poste de santé yi léegi nak actuellement Covid 19 moo am donc ci Covid 19 bi aussi moom tamit bugul rester en latitude stérile du spectateur motax tax mu askan wi sonu nañ donc dafa war a ñëw en samaritain dafa war a ñëw pour secourir leen dafa war a ñëw pour ànd ak ñoom métit bi motax tax mu indi doom yi ñun nak en tant que samois en tant que Kaolagwa, nous dañ mun lu dul parce que lii rek la askan wi am nit ki waro nekk ci intestin population mais ci xolu population yi ngay je pense que c'est symbolique ñun en tant que doomu Kaolag, en tant que citoyen mënul nous dul rafetlu ko. di leen gërëm di leen sant di sant monsieur Bengeloun di centre mouvement am ak ñi koy accompagner ci li muy liggéey noonu donc euh, masques yi ni ci jamono yi parce que dañu war recommencer classe yi à partir du 2 donc comme que dañu war a delluwaat ci classe yi à partir du 2 il faut que bagage yu mat moy masque yi moy euh, moy gel yi moy lave-mains yi moy yoy yëpp état bi joxé na limu ci mën joxé na euh, collectivité territoriale joxé nañu euh, bonne volonté yi ak ay mouvement à ak constat ak ñi jappalé éducation ñi jàppale Kaolack aussi ñom tam ñoo ngi comme ñu melni ben benn liñu li ñu nak dañ koy bolé def clé de répartition distribuer ko aux écoles bima may jógee inspection ñoo ngi tambalé di joxé collège yi lii tam suñu ñëwee dañ ci tégaat rek encore continuer wa di joxé en espérant aussi que vraiment ñëpp dinañ ci ñëpp dinañ ci gis seen bopp.